asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk julti maa ngi leen di dénk di jiital sama bopp ci ragal yàlla ak topp sunna yont yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak tënku ci suñu diine lu mun indil mooy tenku ci suñu diine diine lislaam mu ngi xaajoo ñetti xaaj benn xaaj bi mooy xaaju lislaam beneen xaaj bi mooy xaaju imaan beneen xaaj bi mooy xaaju ixsaan islaam ni ngeen ko xamee mooy seede na amul benn buur ku ñu war a jaam ci dëgg ku dul yàlla yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndaw bu yàlla la gannaaw bi mu nekkee jaamam loolu nag mooy fondement l'islam fondement bi su wéree nga def loolu ci sa xol ba sa xol bi fees nga def ko ci sa xel ba sa xel bi gën koo nangu gën koo jàpp bu baax a baax a baax nga teg ko sa kanam mu nekk say tableau de bord su boobaa lépp lu ñëw ci gannaawam day oyof te day baax te day sell li ñëw ci gannaawam mooy sax ci julli ñu jullee ko comme ni mu waree ñu jaamu ko yàlla ngir jëmm yàlla subhaanahu wa ku yàlla may nga am li ngay asake nga génnee ko ngir yàlla ak yonte bi sallallahu comme ni ko yàlla diglee ci alquranul karim te yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi ko jullit so weeru koor ñëwee ñu wooru weeru koor mu ànd lépp li nga xam ne weeru koor bi lamboo na ko mooy ñu fegu nu moytu dikku ci wax safaan def safaan dox safaan mooy def lépp li nga xam ne yàlla moo ko digal moytu lépp li nga xam ne yàlla dafa ko tere suñu ko defee incha allah lu bari dana baax te dana jag li ci mujj nag mooy su yàlla dogalee aji makka jot nga am kattan am man man yoon bi jàppandal nga dem aji makka تكو سونو يانتي محمد صلى الله عليه وسلم كوم ني مكو واخي خذوا عني مناسككم غناو لول نك احسان امنا وانت تيتي جي ايمان بالله بي لا نيو بوغ واخ ايمان بالله امنا لومو لاج موي ان تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره ما دغاي گم يالا بو باخا باخا باخا باخا gem bu amul sikki sak gem bu amul werante sa xol bi fess deul ngëm yalla sa xel bi fess deul xalaat ci yalla sa doxalin yeb nga sukkandikoo ci gem yalla bobu so boba do def lu dul lu bax do wax lu dul lu bax do dox lu dul lu bax ganaw lol nak nga gem malaka yalla yi gisunu len de wante diggal nañu len gem mbindeef lañu wante mbindeefu spécial lañu war nañu leen gëm ndax yàllaa ko santaane ñu gëm téere yàlla yi tawraat injil zabuur donte gisuñu ko war nañu ko gëm wante suñu téere dëgg dëgg dëgg mooy alquraanul karim moom la ñu yàlla jox nañ ci sukkandiku ci mboolem suñu doxalin àdduna ak mboolem suñu doxalin alaxira ak mboolem suñu doxalin suñu jëgante ak suñu borom kon alquraanul karim boobu mooy suñu téere ñu teg ko suñu kanam di sukkandikoo ci moom gannaaw loolu nag ñu gëm mboolem yonent yi aadam boo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waat nag ki ñu yàlla booleel mooy suñu royukaay mooy suñu lépp moo di mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu gëm ko bu baax a baax a baax ñu sopp ko bu baax a baax a baax ñu rëy ci moom ci mboolem suñu yëngu-yëngu ci kaw suuf incha allah suñu ko defee duñu jum mukk ci àdduna te ëllëg yowmal qiyaama tamit suñu fekkee foofu suñu jëf danañ kontaan incha allah gannaaw loolu nag ñu gëm bisu pencu day ñëw bisu pencu su ñëwee bisu bànneex la ak kontaante ak rëccu wante bisu tiitaange la ak naqari ak rëccu bisu kontaante ak mbégte mooy soo demee foofu nga def lu baax fekke fofu mbax googu da ngay bég da ngay kontaan wax nag da ngay rëccu ma xam ne eh su xamoon lii may def ba yàlla fay ma lii danaa ko yokk ba mu baax a baax a baax su ma ñëwee fi ma fekkee fu macha allah ma la ayn raat wala udun samiat wala xatar ala qalbi bachar maa la tamit suñu fekkee foofu leneen mooy safaan bi يلا نتي يلا مسل فوف تامين نقر لا تيتانغ لا وانت ريتش لا بورمام دي تيت دي راغال دي ريتشو ندخ لي مو فك فوف دي واخ ني اي سما خامون لي لاي فك في دوما ديف لي دوما خلات لي دوما واخ لي كون يلا نير سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره wa man yaamal mithqaala a sharran yara yàlla yàlla may ñu sax ci lu baax di ko wax di ko def di ko dox di ko yéene yàlla na ko yàlla defal gannaaw loolu nag mooy ngëm dogalu yàlla li si dëppoo ak sa bëgg-bëgg ak li waroo ak sa bëgg-bëgg yépp nga xam ne ci yàlla la bàyyi ko tey tey ji nag lii xew mooy corona corona moo jaaxal nit ñi corona mooy tiital nit ñi corona moo terew nit ñi di tëdd nelaw bu yandoor lekk bu suur naan bu mandi wante waruñu jaaxle ñun jullit yi waruñu jaaxle ndax am na loolu yàlla may mooy imaanu billaahi mooy gëm yàlla gëm yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa su suñu gëmee yàlla dëgg dëgg dëgg mooy nekk dëgg dëgg ci ñun dañuy xam corona mbindeef la rek comme ñun yàllaa ko bind moom korona yónnee ko ci kaw jaamam yi képp ki nga xam ni yàlla yónne na korona bii ci yow ala kulli xaalin korona bii dana àgg ci yow dañoo jaxle tey bu baax a baax a baax ci tey bu baax a baax a baax korona korona korona wante dañu xam ne am na ki bind korona moom la ñu war a sooraale moom lañu ñu war a ragal mom lañu wara gëm mom lañu wara war corona korona nekkul lu dul mbindeefu yalla la bi yalla yonne ci kaw suuf naam ga fagar mo gën fajj li docteur yi wax ñu def ko wante nak jar ñu paniquer korona ab niir la rek ab ngelaw rek so bi jël rek day jall so niir bi tawé so sebeté rek mu jeex kon nak corona bi warul yak suñu ngëm warul tamit dem yobale suñu ngëm nañu gëm yàlla subhanahu wa taala ñu gëm yent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu fagaru ci mbollem luy loraange want nak warul yob suñu fit buñu fàtte yàlla ndax yàlla moo moom corona yàlla moo mom yàlla mo bind corona yàlla moo bind te dañoo xamné amna fébar yu bare bare bare mo jitt won corona. wante feebar boobu lu ci yàlla dogalul mu àgg ci yow du àgg ci yow ndax jabet mu ngi foofu yàgg na fi cholestérol mu ngi foofu tension mu ngi foofu cancer mu ngi foofu ak yeneen yooyu yëpp feebar yi yàlla bind jaarle ko ci ay sabab ñëw ci mbindeef yi corona tamit feebar la comme yeneen feebar yi rek moo ko indi moom yàlla subhanahu wa kon nag nañu faggandiku waante nag nañu lamboo ñaan ak sarax ànd ak suñu ngëm nag ndax al imaanu billaahi mooy noppalal doomu aadama lépp lu yàlla dogal mooy am lu ma dogalul du am mukk suñu sëriñ Cheikh Ahmad Tijaan Chérif radiyallaahu anhu bokk na ci benn ñaanam ci biir ahzaabu awraad wa bi jamii majaari ahkaamika sama borom lépp loo dogal sama kaw bég naa ci kontaan naa ci waaye nag dañu fakkandiku dañu moytandiku li docteur yi wax ñu def ko li kilifa yi wax ñu def ko waaye nag nañu lamboo sunu ngëm mën naa am corona bi dafa ñëw pour gën a yokk sunu ngëm ndax képp ku nga xam ne gis na àdduna bii surtout le les xam na ne suñu ngëm macha allah commencé woon na takk suuf yàlla nag. su bëggee ñëpp gëm ko dañu koy gëm par force ndax réew yu mag yi dañoo foogoon ne ñoo gën a ëpp doole ci lépp wante nag yàlla indi na bii nga xam ne ne soldaar bu ndaw la kenn du ko gis kenn du ko mën a laal mu dugg ci ñëpp ñëpp panique loolu mbiru yàlla la kon nag nañu delloo ci yàlla nu gëm baatu la ilaha illallah muhammadur muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبر نيو سرخي نبر نيو جولي نبر نيو نيان يلن يل دفل جم يلن يل مسل سني ريوي مسل ريو جولي ريب كم نسني مام شيخ الحاج مرفوط يد الله تعالى بخون اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى متناد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته